waaw. da dem Gambie wala demoo. Gambie. baa ah, ma xaaram fii rek. demoo Gambie. déedéet. baa ma xaaram fii rek. Ama Baldé Modou Lo face to face jàkkaarloo loolu loolu lu war a neex la moo loolu foofu du fa am dara foofu du fa am ambiance du fa am tuus du fa am yëngal du wax sax. ndax lan. ndax lan. Ama du ko may dara Ama moo ko mooy xale bi mooy ambiance mooy tuus. mooy baata lépp lu mu ko laaj daal Ama Baldé def Modou Lo fa def dara. Mour nee na yàkkamti naa dajeeg Ama Baldé de. Modou nekk rek. ba jokkoo maa jor jokkar dama ne la Modou Lo wax moo fi nekk rek mais moom moom moom xam na ni ku jàkkaaroo moom ne ko ba arbitre bi Ama bu doxee sa kaw du taxaw da dala naan dëgg la. moom. pour pour dagg jéng yi lu garaaw lay doon nii. ama war a génn Pikine la ba Pikine borom màbb nii ba dugg arène nationale waaye lu garaaw laa lay wax. xool. wax ko ko. Mawlo doo xool du du waxoon naa ne boo bëggee sax ñu sa rondal bi ba léegi maa ngi fële rondal bi boo bëggee sax ñu fekk si la rondal bi. bëreeg moom ah mu loo leen day ñëw fii bëri. déedéet ñoom ñu xaar moom nañu xaar. pour muy leer bëgguñ sax muy ñëw fii ñuy naan ay ndoo ko def dara fekk yooyu nañ ko fekk si bëggee su rondalam wala si sade beewam sade bee mooloo laa la wax sax bu ko bëggee nu bëree ko foofu ñu mooloo lu mu lu laaj lu ko laaj su combat bi ñun jaroon ñu ni ko lu ko jaral ñun jaral na ko lu ko raw mooloo dafay dof dof lu rek mais xam na kuy Ama bale bu baax a baax moom kenn ko wax waa Pikine. ah eh, daan na fi Eumeu Sène mais ñoom daan boobu noonu daa am côté mu ko yemale mais yemalu ko si waa Ama de. mais yemul waa Ama yi. Modou Lo yemul doful dof dof lu xamul sax kuy dof. Modou Lo doful dof dof luul. xamul sax xamul sax kuy dof. Modou Lo balaa muy xam kuy dof bi. Mhm. arbitre bi wàccee la. le 5. Ama Baldé Modou Lo arène nationale. baaxul sax arène la ba. na mu ci Ama. nga ne. loo namm ci ama loo gën a ma namm ci ama. waaw takkusaanu. loo ci gën a takkusaanu ama lan la. bëre bi moo gën a daw sama yaram. déedéet. déedéet. ama kase. 100 pour cent 200 pour cent Pikine bi lekk. bi kase. moom gën a neex. fekk jët ba léegi yaa ngi ba léegi yéen a ma gën a xam ñu ngi kër Fall kër Fallaye Balde kër amaa Balde waaye ñu ngi toog ak kenn koo xam te ni ku ko xam-xam ko ci Ama Balde muy Ndioufa maa ngi lay bëggee. te loolu ziar ma kan nuyu du nuyu waa seen bi waa àdduna waa diaspora di nuyu ñëpp di nuyu suñu sëriñ sëñ Atiya Mbacke ak njabootam ku si mel ni maa Ibrahima maa xam di leen ñaanal yàlla la fi ak suñu waajur ñu fi jógee yàlla na suuf oyof seen kaw ñu nekk si hôpital yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñu nekk si kaso yàlla na yàlla génne du ñuy àdduna du ñuy ñëpp di baal àqu ñëpp di baal ñëpp àqu. Ama Baldé Modou war a jàkkaarloo le 16 ak le 17 noo leen waaj. waaw kon nuñ ko waajee rek waaj moom moom du doy kon nuñ ko doon waajee fañ fa lañ tegaat suñu tànk rek waaw ndax waaj nañ fi waajaat fi waaj la rek yëpp ñoo bokk ñu ko waajee mhm. mais bii da see gën a yàgg loolu kese la mhm. Mhm. bi ngeen war a dajee Gambie waaw mais Gambie leng si piiko paaxo Gambien ko ko wax Gambien tuddee leng si piiko paaxo tur boobu jógewul fii de dafa def deux ans kon ko xam nga ne am na lu mu fa am ah. Fallaye yàgg ngemboo Serekunda génn sóori bàyyi dar ko di ko tëgal ba biir stade kon doom Fallaye bi su fa duggaatee rek kenn du wax kenn dara wax fenn yóbbante siiw nee na mooy moom Gambie ndax génération wax feeñ yóbbante siw kenn du wax kenn dara à suivre si kanam yàggul léegi nii nii nii nii. Ama Baldé Modou Lô war a jàkkaarloo. non dina neex. jokko maa jokko maa jokko wiri wiri jaari ndaare bi la xamoon naa. ay Modou Lô waaye ay Ama déggoo lu ma Omar Pène ba mu koy woy yéen a yéen a tax mu yéeg parce que dañ ko bëggoon moo tax mu yéex mais xamoon naa ne daañu daje wiri wiri jaari ndaare Omar Pène woyal naa leen ko te ñoom juddooguñu. mooy lan mooy xamoon naa ne daañu daje moom xam na loolu. moo tax mu koy yàggal di koy yàggal mais ku ñu dóor timis ñu koj la gee nga koy yàggal di nga yàggal ñu xar la salaatu xalaatu mën a naw yi wala la yóbbu ba foofu am di ñu fa ngi dooru Pikine rek la ñuy def way Pikine yi wax rek la ñuy def wax rek la ñuy def